3 mais bi di bés bi nga xam ne moom lañ jagleel liberté de la presse ci àddina bi ñu amal ay toogaanu ñaxtu ci réew mi yëpp noonu lañ ko amalee fii ci département bu Mbacké ci kanamu préfecture bi mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo ngànk ay taskatu xibaar te nekk ci diwaan bi moo xam convention des jeunes reporters du Sénégal ak cm di cadre de concertation des correspondants de Mbacké ak appel b di association des professionnels de la presse en ligne du ñoom ñëpp ñu àndandoo xam ne moom la ñuy jànkoonteel ci diwaan bi lépp ñu def ko ci benn mémorandum boo xam ne jébbal nañ ko préfé waaye ci kanamam ñu fàttali jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund parce que dañu gis ne jamono ji ñu génn presse dafa dellu ginnaaw bu baax a baax au niveau national parce que bu ñu xool waa Reporters sans frontières ci 47e place bi nga xam ne Sénégal amoon na ko jamono ji dañu jël 49e place bi maanaam Sénégal dafa dellu ginnaaw ñaari place ci li nga xamante ne moom mooy liberté de la presse te seet nañ jamono ji yëpp gis ne am na ay manifestation yoo xam ne jotoon na fee jàll ci mois de mars bi nga gis ay organe de presse yoo xam dañ leen saccagé waaye au delà de ça def ay menaces de mort di ko proférer à l'endroit des journalistes donc ñu tënk bés bi ne faw ñu màggal ko ak ak yelleef képp koo xam ne yaa ngi liggéeyee ci wàllum rajo ci wàllum tele wala ci wàllu presse écrite ñu daal lay jox sa ak ak sa yelleef. Euh, fitnaal ji dafa jéggi dayoo te Mbacké mucc ci mun nañ jël récemment rek euh, les locaux de la RFM Mbacké ñu saccagé ko attaqué ko te loolu mooy deuxième wala troisième fois euh, lu yàggut am na ci suñuy naataango yoo xam ne ñu leen di woo di leen menacé ba ci seeni njaboot te ñooñu ñëpp. amul lenn luñ def lu may def seen liggéey correctement liggéeyum taskati xibaar nag moo doon euh, euh, lu jafe mu laaj compréhension laaj tolérance aussi mais laaj professionnalisme ci ki koy def mais diggante bi dafa sensible ba nga xam ne loo fi def rek am na luñ koy wax wala am na luñ koy def wala am na luñ koy gis yoo xam ne mais nag malheureusement ñu ko bëgg a fajee wala ñu yaakaar ne loolu moo koy faj du loolu mooy bëgg a jël presse bi de manière générale mooy xam maan bi la moo xam journaliste bi la moo xam animateur bi la moo xam euh, preneur son bi la nga ne leel dama koy tëj ci benn palanteer boo xam ne benn pantre boo xam ne nii maa koy ubbil fi mu war a génne du génne feneen lu fu mu heure bu ma neexalee génn heure bu ma neexee dugg loolu moo tax ñu ne loolu moom buñ ko seetaanee mën naa am dana am ay jeextal yoo xam ne nii dana jéggi dayo te du gën ci askan wi Malgré cette prise de conscience, les journalistes et les techniciens ne sont pas libres. Ils subissent au quotidien des menaces de tierces personnes qui se réclament de familles religieuses ou talibés parce que se sentant offensés. Nous disons stop. Vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre la presse et les forces de l'ordre ne sont pas les plus souvent lisses. Les souvenirs sont frais dans nos mémoires. En mars Nos deux confrères de Touba TV ont subi l'attaque d'un agent de police. La suite, tout le monde le sait. Et nous ne voulons plus ce genre de situation. Monsieur le préfet, les jeunes reporters sortant d'école sont marginalisés. Leurs conditions de travail sont les plus précaires. La convention collective n'est toujours pas appliquée et la plupart de ces soldats de l'information ne bénéficient d'aucune couverture sanitaire, ni médicale, ni sociale. on ne parle la même pas de leur rêve légitime de pouvoir, euh, de pouvoir, comme tous les travailleurs des autres secteurs, disposer un jour d'un logement décent, fruit de leur labeur et de leur, à leur retraite. Ils sont laissés à eux-mêmes. Le fait que nous ne sommes pas considérés, c'est ce nous euh, sunuy doléance presse en ligne bi fii nii considération bi ci war joxuñu leen ko moo xam ci autorités yi xam ne dañ fi ñëw di def seen manifestation moo xam ci ñeneen ñi nga xam ne dañu fi ñëw di yëngu mel ni dese nañoo gis seen bopp daal ci ci ci métier mi ñu nekkee loolu daal mën naa ne daanaka ci gàttal ndax leneen li ci des lépp bind nañ ko ci mémorandum bi kon du jar ñu di ko di ko di ko di liiraat yooyu waaye daal loolu daal mooy li nga xam ne mooy moo ñu gën a yitteel. ñetti mbir mooy li xew ci at mi lu nga xam ne xaw na noo sonal ñun taskatu xibaar yi mooy. Euh, Euh, journage bi nga xam ne mooy Awa Ndiaye bu Touba TV ab policier buntu xataan naka fi mu ngi ci réseaux sociaux yi waaye RFM Mbàkke yi gis nañ ne ay nit ñëw noonu attaqué ko toj fa ay vitre am na kenn si ñun di taskatu xibaar ñëw noonu di ko menacé ba ñëw këram woo ko ci téléphone di ko menacé nu gis ne ñett yooyu ci cent cinq jours danañ wax ne tuuti na waaye bu doon suñu sago at mii nu dëgmal moom lu mel noonu dootul am zone bi nga xam ne moo di Touba ak Mbacké am na fi ay ndaw yoo xam ne yitewoon nañ tàggatu maanaam ñu formé waat leen bu baax a baax lu jëm ci wàllum tasum xibaar loolee fàttale nañ ko kilifa yi. dañu dem ba presque dafa yaatu léegi ni mu nekkee ni ni entrepreneuriat ngay dem di defee dara am na yoo xam ne dañu am gu def ay presse def entreprise de presse bien vrai que duñ ay professionnel mais ñoom dañ leen war a jëmmal jox leen ay financement ñu dem jàng ji mën a ñëw waaye ñeneen moo xam caméraman lay doon moo xam reporter lay doon moo xam leneen wax leneen ngir ñoom tamit ñu mën a gis seen bopp loolu yokk liggéey lay doon wàññi taux de chômage lay doon. dafa nekk loo xam ne dafa xew maanaam maanaam dafa xew ci jamono yi ñëpp dañuy jóg riir wuti ko mu mel ni ñi ci dugg ñëpp bari nañ te qualification yi des na léegi nag ñu soxla ay ndimbal ak. ay séminaire de renforcement de capacité ci ñi nga xam ne ñoo yëngutu ci wet googu bu ko defee li nga xam ne bëgg nañ ko ci assainir presse bi ñu mën ko am bu baax a baax. préfet bu département bu Mbacké nee na mémorandum bi nga xam ne moom nañ ko jébbal dana ko jottali ay kilifaam te it jafe-jafe yi nga xam ne moom mooy am ci diwaan bi danañ ci taxaw ngir jëm ko saafara. liggéey am na boo xam ne war nañ ko si def ak taxawaay boo xam ne war nañ ko si moo tax ñu ñëw tey jàpp ne bu ñu joxee mémorandum ñu egg ko si kaw loolu aussi dinañ ko jël mais li ma ne nañu rafetlu quand même que fii Mbacké euh, nekkul ñu fii si situation yoo xam ne gàllankoor yi dafa jéggi dayo gàllankoor nag du ñàkk comme ni ma ko firndeel sànq circulation di nga ko gis muy dem di nga gis benn accident ñaar waaye taxul ñu ne nit ñi si accident rek ni ñi dëkk loolu aussi du si du si ñàkk loolu mooy wane ne ñun am na liggéey bu ñu war a gën a def pour que nit ñi ñu aar leen si ni ñu war a Euh, liggéeyee euh, li ñu war a euh, yëngatoo si seen métier mais également ñi nga xam ne dañuy yëngatu si seen métier notamment ñoom si wàllu katu xibaar ñu xam ne li ñu yor dafa nekk loo xam ne du lu ñuy fooye ñu davantage gën leen accompagner si wàllu formation bi mais également gën leen accompagner si wàllu aar bi kaaraange bi ba nga xam ne yenn dérive yi nga xam ne ñoom wax nañ ko te mu bokk si li nga xam ne moom nañuy yëkkati toujours ci célébration de la presse que dérive yooyu mu mu deñ bu fekkee mënul deñ mu wàññeeku bu baax a baax a baax. nii la ko mboolem taskatu xibaar ak technicien de la presse yi defee fii ci diwaanu Mbàkke xeex ngir mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moom la taskatu xibaar yi ak technicien yi di dundu mu nekk lool day nekk ci suñu ginnaaw.